asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm yenn ci ay jafe-jafe yoo xam ne nag fan yi yëpp ñoo ngi koy lim jëmalekoo ko ci wàllu magistrature bi tey jii moom la colikaay bi di Sud Quotidien daal di xëyee di ñu xamal ne ba léegi coow laa ngi nekkur pënd bi wureegul ndaxte fu mu nekk nii tey jii sax colikaay bi di Sud Quotidien ma ngay ñëwaat ci yenn ci ay affaires yoo xam ne dafa taqal nag tey jii lépp lu jublu ci wàllu yoon suñu naataango yi dem sax bay laajte ndax fi mu nekk ni sax ñii di sénégalais yi wóolu nañu nag ci ni mu waree ñi nga xam ne ñoom ñooy magistrat yi ndaxte la nemmeeku ci wàllu guerre ñu koy tudd nag ci seen wàllu bërëbu liggéeykaay boobu ma ngay ñaawal nag xelu ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi ëcculikaay bii di la témoin tey ji it daal di euh, xëyee wàllu guerre gi nga xam ne nag ñoo ngi koy tudd euh, ci biir ñi nga xam ne nag ñoom ñooy magistrat yi loolu sax taxoon ba nag jëwriñ gi nga xam ne moom mooy maître Malick Sall daal di yónni waa inspection générale de l'administration de la justice ngir ñu liññatu nag jëmale ko ci wàll gi ni mel bii di la témoin di ñëwaat moom it ci yenn ci ay affaires yoo xam ne nag euh, day tilimal deru ñi nga xam ne nag tey jii de ñoom ñooy yëngatu ci lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu yoon ba léegi ci wàll gi ni mel dañ ciy des ndaxte julikaay bii di les échos seq na waxtaan tey ak ancien procureur près la CREI yi di Aliou Ndao moom tey jii nag consultant la la mu gis moom mooy na yenn ci coow li nga xam ne nag dañu ko gis jëmale ko ci wàllu magistrature loolu de day gën a tax nag ba sénégalais confiance yi ñu amoon jëmale ko nag ci wàllu magistrat yooyu nag day wàññeeku bu baax a baax moom sax mu daal di ci yokk di xamle ne ci conseil supérieur de la magistrature magistrature dafa mel ni ne ñi ci bokk ñi ca ëpp maanaam daal li ëpp ci magistrat yi ñoom wóoluwuñu conseil supérieur de la magistrature mu daal gis tamit ne fii ci biir Sénégal nañuy doxalee nag ci wàllu yoon boo ko liñatoo tey ji ak nañu ko doon defee ci temps yu njëkk ya am na nag lu ci wuute lu bëri autolikaay bi di laas tey ji moom seq waxtaan ak Abdou Fall nekkoon fi jëwriñ gu ñu denk wàllu wér gi yaram moom moomu nag tey ji daal di jukki jëmale nag ci nañuy doxalee dialogue politique bi ci ñetteelu mandat bi ñuy lam-laame ne Macky Sall daf ko bëgg amal fii ci biir réew mi wante it wax na ca xew-xew ga nga xam ne moom moo am fële nga xam ne moom mooy ca Mali livre bi nga xam ne nag Thierno Alassane Sall moom moo ko daal di fësal ba léegi nag ña ngi cay way di ko coow tey ji saxu colikaay bii di direct news moo ñuy xamal ne kii di Thierno Alassane Sall na mu doxalee du dëgg du yoon te moom dafa nekkoon ab jëwriñ te képp koo xam ne nag da nga nekk ci biir gouvernement wala bokk nekk ci ñi nga xam ne daal ñoom ñoo jiitee ab loo xam ne nag daf la war maanaam daal du lépp loo xam ne nag moom moo fay xewee nga daal di koy fësal dafa am nag lu ñuy wax droit de réserve kon nag ki nga xam ne de moom mooy Thierno Alassane Sall waru woon nag fësal ay kàddu yi ni mel wante colikaay bii di tribune tey ji sax ma ngay ñëwaat ci yenn ci ay pàcc yoo xam ne kii di Thierno Alassane Sall daal dina koy bind ci biir livre am boobu wante lañ ca nemmeeku naka te mu doy waar moom mooy ne ay baaraamu tuuma yu bëri la ñu joxoñ jëmale ko nag ci Macky Sall ak njabootam ci lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu pétrole bi nañu ko yoree fii ci biir réew mi ak tamit séddale bi nga xam ne daal moom la ko Macky Sall séddale séddale gu jaarul yoon ñu daal di jeexalee nag ak mbir bu doy waar bi nga xam ne moom moo xew démb fële nga xam ne moom mooy ca Mamel benn douanier bu daal di dóor doomam ba mu mujjee ñàkk ba kenam culikaay bii di libération mi ngi ñi xamal ne mi ngi tudd colonel Mouhamadou Sall moom nag ma ngay liggéeyee ca section bu Mol 2 daal di nay xamle ne li mu def noonu xamul sax lan moo ko ko defloo moom ne ànduloo woon ak xelam ba muy def li ni mel ndaxte nee na daal doomam daf ko bëggoon a yar dong loolu nag xamul sax naka la mujje culikaay bi de Libération mi ngi ñuy nettali ne moom sax dafa dóor doom ji ba bopp bi nag daal di dal ci lavabo wu seen salle de bain lavabo sax dafa mujjee tas euh, tasar moom moomu nag di douanier bi nga xam ne nag ma ngay liggéey ca ca Molde bu port autonome de Dakar mujjee nañu ko nag yóbbu ci hôpital Fann ngir daal di saytu lépp lu jublu ci wàllu wér gi yaramam jabar ji moom ba mu yëgee li dafa dafa bëggoon a xaru doom ji nga xam ne nag moom moo faatu seex bi nag fi mu nekk nii jooy yu métti rek la nekkee ci wàllu lambo culikaay bii di sunu lambo moom mooy laajte ndax ki nga xam ne nag moom mooy Balla Gaye moom mun naa wéyal carrière am ci biir lamb gi ndaxte moom lépp loo xam ne nag ab mbër war na kaa mën a am ci lamb gi am na ko ba pare ndaxte daal dina ci daan ñi nga xam ne nag ñu mag la ku ci mel ni Modou di laajte ñi nga xam ne ñoom la waa publicité bi di suñu lamb daal di jokkool ku ci mel ni Lamine Samba moom daal dina xam ne nag ne ñaar moom moo desi ki nga xam ne moom moom mooy daan ki nga xam ne nag moom mooy fexe ba couronne roi des arènes bi nga xam ne nag Bombardier moom moo ko foxote ci ay loxoom mu fexe ba mu dellu siwaat ci moom lii moo nekkoon ba ci li gën a ci biir jullikaay yi ñu leen di ñaanal njeex ci lu le premier euh, président de la Cour d'appel de Kaolack, Ousmane Kane, qui ont poussé le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, à la saisine de l'inspection générale de l'administration de la justice, ne font que remuer le couteau dans la plaie d'un corps d'élite malade. En effet, nous disons confrères de Sud Quotidien, depuis quelques années, la magistrature est en proie à des difficultés qui n'honorent pas la justice sénégalaise, alors que le pouvoir judiciaire devrait jouer son rôle de garant de l'application des lois de la République dans toute leur rigueur. Tiraillement entre magistrats, gestion des grands dossiers politico-judiciaires, à savoir l'affaire Khalifa Sall, Karim Ouad, Aïda Diong et du verdict de l'invalidation la Cour d'appel de Saint-Louis les affaires des enregistrements entre magistrats et autres avocats. Voilà donc autant de faits qui fragilisent la magistrature sénégalaise, ce qui laisse croire, selon nos confrères de Sud Quotidien, que nous avons affaire aujourd'hui à un grand corps malade qui a besoin de redorer son blason. Donc, disons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que la justice sénégalaise est loin d'être un long fleuve tranquille. Mis à part cette affaire opposant situation qui l'ébranle actuellement dans un contexte de suspicion autour de la mafia de la grâce présidentielle accordée à des personnes inéligibles semble même conforter la thèse que le temple de Thémis marche ces dernières années au rythme des scandales. Nos confrères du journal Le Témoin sont d'avis que la justice est la colonne vertébrale d'un pays et dès qu'elle se brise pour quelque raison que ce soit, on assiste à l'effondrement de tout un système citoyens justiciables. Nos confrères nous citent aussi euh, des euh, affaires qui font euh, polémique au niveau de la magistrature. Donc, elles sont nombreuses, les casseroles que traînent les magistrats et qui écornent l'image de ce prestigieux corps. Dans le journal Les Échos, nos confrères se sont entretenus avec l'ancien procureur prélat ancien avocat général à la Cour d'appel de Dakar et actuellement consultant en droit. Aliou Ndao est très peiné par la passe d'armes les ayant pratiqués tous les deux ils se désolent que ces magistrats participent à la descente aux enfers de la justice sénégalaise ainsi donc selon Alioune à la suite de l'enquête de l'inspection générale de l'administration de la justice des sanctions doivent suivre s'il y a lieu le consultant en droit indexe également l'état sur la situation dégradée de la justice sénégalaise il estime par ailleurs que la majorité des magistrats n'a pas confiance au la magistrature dans aux questions de nos confrères du flottement dans la gestion de la Covid-19 dans un contexte de controverse autour de l'organisation du Magal en passant par la crise malienne et la question du troisième mandat, Abdou Fall n'occulte aucune question. Avec son background riche de plusieurs décennies de pratiques politiques de haut niveau, d'abord sous Cheikh Anta puis aux côtés de Babacar Niang, l'ancien président du groupe SOPI à l'Assemblée nationale, décrypte place. Le livre de Tcherno Alassane Sall continue de faire couler beaucoup de salive. C'est un livre de 485 pages Le protocole de l'Élysée et selon nos confrères de Direct News, c'est à travers euh, ce livre a été convié au banquet du Conseil des ministres pendant près de cinq ans, en plus de l'honneur qui lui a été de diriger l'une des euh, plus prestigieuses structures de l'État, s'est donc à un véritable exercice de délation élu le sacro-saint de la République. Pour nos confrères, l'État a ceci de sacré. Son fonctionnement n'est réservé qu'à des personnalités dotées d'un sens élevé de la retenue pour éviter que notre pays se retrouve à la merci de nos ennemis. Donc, pour nos confrères du journal Direct News, Thierno Alassane Sall a dévalorisé la République. Le protocole de la loyauté a été brisé. Dans le journal Tribune, nos confrères nous proposent aussi quelques extraits concernant nationale et nos confrères nous indiquent qu'il y a eu euh, de graves accusations concernant la gestion du pétrole. Parlons à présent avec nos confrères du journal Libération de ces révélations sur le drame au Mamel. Le colonel Mohamedou Sall bat à mort sa fille âgée de 6 ans. Ce dernier déclare qu'il était possédé par le diable. Il voulait juste corriger sa fille, mais il ne sait plus ce qui s'est passé après. C'est ce qu'a déclaré donc le chef de section au Môle a cogné la tête de cette dernière contre le lavabo de la salle de bain qui a explosé en morceaux. La maman de la victime a tenté de se suicider hier. Quant à la sœur jumelle de la victime, elle n'a plus que ses larmes pour pleurer. Et l'on nous signale dans le journal Vox Populi que le douanier en question souffre de troubles mentaux et a été interné au service psychiatrique de l'hôpital Fann. Terminons par le sport avec cette question que se posent nos confrères. Saint-Germain. Ce dernier donc critiqué et relégué au second plan. Malik Daf trouve que Ghana ne doit pas rester au Paris Saint-Germain. Abdoulaye Sarr avoue que Idrissa doit se remettre en question et rebondir. Et pour Badara Sarr, Gana Gueye n'est pas dans les bonnes grâces de Leonardo. C'est à vos journaux et très bonne lecture.